waaw première réaction bi mooy damay wax ni alhamdulilah wa shukrillah euh, damay sant yàlla parce que tout simplement euh, Médina ñun ñëpp xamante nañu et à le dire ñun ay voisins lañu ay famille lañu ay dëkkandoo lañu ay lépp lañu le 24 bu jeexee ñooy nekkati ci biir euh, xew yi ñooy demalante ñooy tuddee ay doom ñooy defante lu baax te Médina lu baax rek lay xam. alors gisoon nañ lu fi xew mais boo leen xoolee la coalition Yewwi Askan Wi suñu campagne dañ ko def dans la sérénité dañ ko def dans la paix et on a même appelé à la paix Médina lu dul jàmm xaju fi jàmm rek moo fi xaj alors def nañ ko sant nañ ci yàlla nañu ñaan yàlla euh, si si vraiment les fruits euh, répondent à la promesse des fleurs euh, nous savons que nous allons s'en sortir vraiment avec euh, brio incha allah. Mm-hmm. waaw xam nga citoyen lañu nag te comme dañuy def acte civique acte citoyen te ñun sunu coalition dañu tënk ci valeur parce que ñi ko ñi ko euh, ndar képp yëpp coalition bi ténor yi lider yi militants yi yëpp ci valeur kese la ñuy dox mënuñu def loo xam ne contre valeur la ce n'est pas parce que nous sommes candidats ou candidates que ñu war ñëw bousculer l'ordre qu'il y dem di voter ji parce que dañu am statut d'autorité non fii kenn du fi autorité ñëpp ay citoyens lañ donc bu ñu ñëwee euh, taxaw rang c'est très normal ah waaye nag comme euh, policier yi nee nañ dañuy bañ mu am débordement wala mu xat nañu ñaan ñu ñaan citoyens yi ñu may ñu et vraiment ils l'ont fait de bon cœur avec gaieté de cœur ñu xam ne daal am na euh, médinois yi ñu ngi porter le yi dans leur cœur moo tax ñu ñu ñu rek ñu may ñu ñu dem ndànk avec sérénité daal di dem voter génn ñi doon def violence sax dem nañ ba xam ne nekkuñu ci lu lu lu lu jaadu parce que lan moo fi jot wax naa ko benn télévision ma ne waaw kaay leen dénk ma seen mbir ma doxalal leen ko ak gestion mairie ni mu méttee lu ci jar xeex ak xulo tey nag dem nañu ba ñun won nañ leen le bon exemple ñun won nañ leen ne dara àdduna dara jarul yàkkamti dara jarul ko fi xeex ñoom tamit euh, ñu ñu ñu ñu sol weex pour symboliser la pe te loolu lañ doon ñaan alhamdulilah bu fekkente ne nekk na lu lu ñu gëm yemul ci port vestimentaire bi rek nañ ko continuer rek mi dina am jàmm xam nga nag euh, gañe moom c'est du ressort de la volonté divine ñun ay doomu aadama lañu ay croyants lañu ay jullit lañu ay catholique lañu dañoo gëm dëkku gëm lañu nekk euh, gagné mu ngi ci loxo yàlla mais nag bu fekkente ne li la war def nga ko euh, wax nga ak askan bi am nga appareil boo xam ne nit ñi gëm nañ ko am nañu ci espoir nit ñi épouser nañu sa philosophie nit ñi dalal nañu seen sa xel ci bi nga waxtaanee ak ñoom war nga am sañ am yaakaar donc am nañu yaakaar du ñu wax nag dañuy gagné ndax yàlla moo yore gagné mais daal yéen a ko gisandoo bi ñu duggee gis ngeen nit ñu euh, accueillir ni population bi am engouement ci bi donc am nañu yaakaar mën nañoo am yaakaar ne mën nañoo gagné. waaw tëj rek mooy ñu ñaan jàmm nit ñi tamit bàyyi xel ne yàlla mooy programmé. te kii fi yàlla di teg mooy xëy na ki gën ci Médina parce que yàlla du juum ñun ñun ñun euh, nit ñun ñooy juum mais yàlla du juum donc bu ñu demee à l'issue de ce scrutin là ba nga xam ne yàlla jël na kenn ci candidat bi te yàlla na nekk man ñu nangu ko rek parce que nag xam nga lu tax ñeenti góor lañu man rek maa ci jigéen te maa leen woon yoon nag depuis bi ñu commencé campagne bokkuñu sax schéma wu campagne ñoom ba ñuy wër ndeelu di def seen ay xumbaay ak di di di di di nax population bi ñun ñu ngi dem di xool aspiration wu population yi ñoom ba ñuy nekk di taal pétard ak di xeex ñun ñu ngi dem di xool lan moo metti askan bi ak lan la ñu mun a bu ñu gañee lan la ñuy joyanti looloo tax suñu programme ñu tuddee ko yeesal loolu ñu jël ko en tëgg suñu programme waxante ak médinois yi ñu xamal ñu li nga xam ne moo nekk seen xol te je dis toujours que euh, élection du ay xeer xel la du ay xeer xel la bi ñu demee ba nag nga xam ne loolu yëpp réalisé nañ ko moo ñu ngi xool ci fin wu campagne bi ñoom ñëpp ils se sont ravisés ñëw nañu defaat comme suñu schéma mais est-ce que boobu bay wéyul mbuus en tout cas daal li mag mi waxoon moo am mën a waaxu xam fa nga jëm moo ko gën